ndax xalaat nga lan moo tax yàlla bind la lan moo tax mu amal la ci dund bi daf la bind ngir nga daal di koy jaamu yàlla mi koy wax na mu ne binduma jinne ak doomu aadama lu ngir ñu daal di may jaamu mënoo dëggal ab njam ba nga daal di topp yàlla nga def lum la digal bàyyi tamit lum la tere yelloowul tamit wàccuwaay ab njaam koo xamante ne dafa féttéerlu ci boromam mënoo nekk dëgg-dëgg jaam ba nga daal koy bëgg nga màggal ko nga bañ ko bokkaaleeg dara yàlla mi koy wax na mu ne am na ñenn ci nit ñi ñu wutal yàlla ay ndend ki moroom di leen bëgg comme ni ñu bëgg yàlla waaye ña gëm bëgg bi ñu bëgg yàlla moo gën a tar ànd ak bëgg yàlla danga ko war a yaakaar ragal ko yaakaar dafa mel ni ñaari laafu picc buy naw bu ñu tolloowee yemoo picc bi tamit dal di yemoo waaye naawam gi daal di mat waaye boo amee lu ci wàññeeku wàññeeku daal dinay dugg si mënatoo nekk jaamu yàlla ba nga daldi def jaamu daal di nekk sa mboolem dund déet mu nekk mbir yi ñuy joxe ci biir jàkk rek yàlla wax na mu ne waxal sama julli sama rendi sama dund sama dee lépp ñeel na borom mindaafoon jaamu yàlla mooy nga daal def say jëflante ci wàllu koom waaye lënkaloo ak nit ñi yoon yi ñuy jaar ci jàngale bépp wet ci dund bi dëppook sharia yàlla yàlla mi wax na mu ne e yéen ñi gëm dugg leen ci lislaam ci ay mboolem wetam jullit ñi dañ leen digal ñu daldi di jàpp ci mbooleem wetu lislaam ak i santaaneem jëfe mbooleem santaane yi bàyyi mboolem yi mu tere seen kem kàttan mënoo dëggal nag dëgg-dëgg jaam ba nga dal di taxaw ci jaamu yàlla yi nga xamante ne xol moo koy def lu mel ni sellal ak wéeru ci yàlla ak jaamu yàlla yu aju ci làmmiñ lu mel ni tudd yàlla ak ñaan ak jaamu yàlla yu aju ci cëri lu mel ni julli ak woor ci loolu lay matee dëgg-dëgg ngëm ngëm mooy la ngay dëggal sa xol la ngay wax sa làmmiñ waaye tamit la cëri di jëfe mënoo nekk dëgg-dëgg jaam ba te nga daldi wëy ci jaamu yàlla ba sa mujjanteelub dund alxasanul basri yàlla na ko yàlla yaram mu ne nit ñi yàlla de deful jëf aji gëm ji dikk bi muy yem lu dul faatu topp mu daldi jàng waxu borom bi wa'bud rabbaka xatta ya'tiyakal yaqiin na nga jaamu sa borom ba